asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi seetaan Touba Argentine euh, àdduna wërngal këpp Amérique latine bi ci ndigalul sëriñ Gora Seck lañ ñëw fii Touba Njenne nga xam ne ni dëkkub euh, sëriñ Issa Dienne moom mi nga xam ne ni dafa bokkoon ci ñi àndoon nag sëriñ Touba moom la defal doomam ak ay sëtam màggal fii nii ci Njenne moom bokkoon na ci ñi nga xam ne nii kër gi nga xam ne ni moom la Serigne Touba dëkke woon ci njaareem moom ci jëmmi boppam moom moo ko wutal titre foncier joxoon ko addiya Serigne Touba jumay njaareem gi tamit moom la ñu joxoon pour mu tabax ko euh, armée li yi tamit moom la ñu joxoon pour mu defar ko moom lañ moom lañ ko dénk moom moo yore moom la ñu dénk armée lu Touba yi kon Euh, ki nga xam ne nag moom la ñuy màggal fii kooku bokkoon na ci ñi nga xam ne nii sëriñ Touba dañoo nekkoon dafa nekkoon fekkante woon ak jamono Serigne Touba nga xam ne liggéey na liggéey bu rëy ngir am na bes Serigne Touba doon ataaya xel leen kaas ci seen loxo ci loxol boppam jox leen bi mu joxee sëñ Issa Diène sëñ Issa Diène jël kaas bi du naanee ba pare jël dugal ci biir poosam euh, sëñ euh, moom it mu jël dugal ci biir poosam bi sëñ bi naa daan ne leen ah waaw yéen bu fekkee ne del ngeen kaas yi dugal seen kon ñi ci des maanaam lu ñu leen di xelalee kenn ku nekk génnewaat kaas boobu joxaat sëñ bi mu daal di ne sëñ Issa mu daal di ne nag yow sa wa gërëm naa la yàlla gërëm na la sëriñ Touba gërëm na la yonent bi gërëm na la sa wayjur gërëm na la sa wayjur wu jigéen tamit gërëm na la daal di tamit képp koo xam ne nii gërëm nga ko rek dëpp dana am dana làq gërëm kon kooku mooy ki nga xam ne nii moom la ñuy màggal tey jii.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 yàgg la bu daaw la ak di ko moom xam lu lool baax ci ndamba ak yanda la la ilaha illallah jënd yoo xam yàgg la bu daaw la ak di ko moom xam lu lool baax ci ndamba ak yanda la la ilaha la la la faal suñu jéegi faal suñu bamba atal yàlla la ilaha illallah درجة الرياضة هذا رسول الله سندم بأتني لا لا لا لا إله إلا Mansour moo xam. Mawal Mansour moo xam. Yamba at yamba laa laa ilaaha illallah. Mawal Mansour moo xam. Yamba at yamba laa laa ilaaha illallah. waral Sarsara. am na yu jox Ahmadu Bamba. suñ Bamba atul ñun da laa ilaaha illallah. maa ngi la daa musulmaa xam. am na yu Ahmadu Bamba. suñ Bamba atul ñun da laa ilaaha illallah. لا قوت الا بالله محمد بامبا سيدنا اقل يمبا لا لا اله الا الله ولا اخلاق الموت الفرس awliya awliya ñu mën Ahmadu Bamba Sëriñ Bamba akul yamba la la ilaha illa Allah يحييه أحمد الله لا لا أنا دولة سلم tàmbalee sama xasida yi ma bàkku yàlla dama àqu yàlla laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah dama àqu yàlla dama àqu yàlla dama àqu yàlla laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah wàllu na ko man ma saadax armam man moomin baara inni man man moomin laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah wàllu na ko man ma saadax bamba cheikh ba bamba cheikh baara man man moomin laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah barki امر صادق من اليوم لا جمع عسل maam Cheikh Sadien salaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu bokk réew mi ak bitim réew bokk Sénégal ak Europe ñu ngi leen di nuyu ci turu Serigne bu jenn mii toog mi ngi leen di siyaar bu baax di leen ñaanal jàmmi àddina jàmmi alaaxira sëriñ bi nee na tey ji amati na mu rëy ci bis bi nga xam ne bi ñu xëyee li ëpp ci réew mi wala ci fii Touba ak likoor ko wër yëpp itam jàngate alxuraan yépp seen daara yépp ñoom ñëpp jël nañ seeni téere jàng alxuraan ju bari kaamil yoo xam ne kenn mënta xam lim nu mu toll jooyal ko ci ñaanal ci sëriñ Baara Jenn ñam fa fekk ak ñoo ko fa fekk ñëpp sëriñ bi nee na woowu yàlla na ko suñu borom wisaare ci àddina wërngal këpp sëriñ bi nee na ñi nga xam ne dañuy doon jàng euh, xasaayitam te bu fii ñu ni bayeeguñ sëriñ bi nee na yàlla nañ ci daje ngërëmal sëriñ Touba ak ngërëmal maam seex saa Diène euh, sëriñ bi nee na fépp fu waay jóge ñëw fii tey ci njenne ak li wër njenne ak fu waay mën a nekk rek nee na mi ngi ñaan ci suñ borom ñaan ci sëriñ Mouhamadou Lamine jenn yàlla defal la ca lu kawe sa njort ci aw yiw sëriñ bi nee na képp koo xam ne dangaa indi woon fii bagaas moo xam lu jëm ci eh, bis bi la moo xam ñam la moo xam wàllu jumtukaay la ak lu ma doon lu ne rek nee na donte agut ceeb ba gis ko it am na ndaw yoo xam ne dem nañ fi moom ba gis nañ ko leeral nañ ko ko nee na loola sant nañ ca baax a baax nee na ñi nga xam ne ñoo taxaw bis bi itam tàmbule ci ay doomam ak taalibe yi ak fu waay mën a jóge jàpp ci bis bi rek nee na sëriñ bi nee na mi ngi ñaan yàlla ci daje ngërëmul sëriñ Mouhamadou Lamine Diène mi tax ñuy def bis bii sëriñ bi nee na ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàllu waañ wi yor togg yi di dem ak a ñëw nekk ci sawara wi nekk ci loo xam ne day bégal doomu aadama yi nga xam ne dañoo jóg ñëw fii ci bis bii nee na ñoom itam seen liggéey boobu yàlla na ci daje ngërëmal sëriñ Mouhamadou Lamine Diène euh, te am ko ci sëriñ bi nee na ñi nga xam ne itam dañoo yor ay waruwaay te itam yombal dikk bi nar yombal dem gi nee na waruwaay yooyu yàlla ci suñu borom teg loxo ba yàlla buñ ci am benn pakk sëriñ bi nee na ñi nga xam ne itam ñooy wàllu takk der yi ba ñu xëyee ba léegi ñëw nañ fii am na ñoom bis bi lépp lu ci war def nañ ko ci euh, ci wàllu liggéey bi ñoom it ñu ngi ñaan yàlla nañ ci dajeeg ngërëmal sëriñ Mouhamadou Lamine Diène te ñu am ko ci sëriñ bi nee na amul benn jumtukaay boo xam ne soxla nañ ko ci bis bii te ñëw ci bis bii nee na kon mi ci sant baax dina gërëm nee nag moom moo waroon jël kàddu gi wax ñëpp di ko dégg waaye nee na euh, lépp loo xam ne li njuumte la ci mi ngi maa ngi koy jégalu bu baax waaye lépp lu ci rafet ci moom la jógee loolu it ñu bàyyi xel baax nee na ñu ne ci wàllu média yi moo xam rajo la moo xam télévision la nee na kenn ku nekk ba ñu dëgmale bis ba léegi def nga ci sa wàll eh, yëg na ko gis na ko nee na yàlla na ci am ngërëmal sëriñ Mouhamadou Lamine Diène nee na télévision bi nga xam ne tey moo teew fii di Lamp Fall ak télévision yi mu àndal yëpp itam nga xam ne ñoom wax ji ñoo koy wisaare ba kenn ku nekk mën koo déglu mën koo seetaan ba bis bi bu ëllëgatee kenn ku ne xam ne bisu sëñ Mouhamadou Lamine Diène juróom-ñeent fan ci baraxlu wi la kenn ku di ko waajal nee na yéen seen jumtukaay yii yàlla na suñu borom ba teg loxo yàlla gën a barkeel yàlla na gën a bari te lépp lu ngeen ci am ci liggéey bi yàlla na barkeel lii la sëriñ bi waxoon ne naa leen ko jot li ci kanamam ci kàddoom nee na nag moom bu sañoon mbooloo fu ñu nekk moo xam ci baas la wala ci kër la wala fu mu mën a doon dana jël tànkam dem fa saafoonte ak ñoom ndax nee na bis bi jaral leen ko waaye moom it nee na jaral ngeen ko ko lii daal sëriñ bi waxoon naa leen ko wax maa ngi jégalu bu baax a baax a baax waaye sëriñ bi nee nag nan sax ci jàmm yàlla tey moytu ay tere te sax ci ndigal saa bu ñu ko defee rek lépp lu bëgg daañu am loola loolu sëriñ bi waxoon na ko euh, defe naa ne lii nag kàddu yi la ma sëriñ bi dénkoon ne naa ko jot jërëjëf ba léegi ci kàddu yi ndigal la jóge sëriñ bi ak ñaan gi nga xam ne euh, tubaa Argentine nga xam ne day bu mag wër addina bépp tey Amérique fenn fu nekk mu nekk te ñëpp di ko seetaan ndénkaan li nga xam ne moom la sëriñ bi dénk te tiijaan yeeg murid yeeg xaadir yi ñëpp bokk di ko seetaan euh, mu jumtukaay bu xereñ sëriñ bi nee na na ngeen tàmbalee ci sëriñ bi yem ci sëriñ bi lépp di lislaam lislaam nag boo ci nekkee doo xaajale pël beeg naar beek wolof bi kon kenn ku nekk da ci am euh, awlef kon nee na na fexe ba daal fépp fu ngeen dem ngeen mën a déggoo ak ñoom mën a euh, ànd ak ñoom saa bu ñu ko defee jumtukaay bi day yokk jëm kanam euh, loolu it sëriñ bi mu ngi leen koy dénk waaye nee na de fee yéen a ngi sax ci këri diine yi fu ñu mën a nekk ngeen di fa dem taatan wax ji di ko jàllale nit ñi di ci jariñu kanam rek la jëm faaw nee na mu ngi leen di ñaanal jumtukaay bii li ngeen ci bëgg yàlla ko suñu borom def li ngeen ci bëgg yàlla ko maam sëriñ Tuubaa Seexal Xadim def euh, li nga wax ci lu waral bis bii bis bii da bis boo xam ne. bisub sëriñ Mouhamadou Lamine Dieng la sëriñ Mouhamadou Lamine Dieng bi mu wàccee ab liggéey nga xam ne sëriñ Baara jenn moo fa sëriñ moo fi nekkoon sëriñ Naar Dieng moom moo jëloon liggéey bi ànd ko ak murid yëpp ak taalibe yëpp rawatina ahlu Dieng nag mu ànd ko ak rakkam yëpp ak taalibe yëpp ak doom yëpp bi suñu borom dogalee euh, sëriñ Naar Dieng làqu euh, sëriñ Basiir Dieng daal di jël liggéey bi ànd ceeg taalibe yëpp ak ahlu Dieng yëpp liñ la ko waxee léegi rek. tey jii nag suñu borom dogal na euh, euh, euh, jàmbaar jii di Cheikh bu jenn di doom ci sëriñ Mouhamadou Lamine jenn mi nga xam moo wàcc bu liggéey moo waral bis bi ñu di ko ñaanal bis bi itam li nga xam moom lañ ci daan sàkku la ci sëriñ bi sàkku képp kuy jóg nanga waaj ba jekk waaye na nga waajal sa bopp ba jekk ci fànn yëpp moo xam wàllu col gi la moo xam wàllu set gi la ndax képp ku ñëw rek li ngay jëkk def mooy daal di jël sab téere tam de durus xasaayit yéene ci yool bi ki nga xam ne moom lañ koy ñaanal muy sax sëriñ Mouhamadou Lamine Diène te boo xoolee benn benn kaamil wala benn aaya boo xam ne sell na lim mën a defar ci àddina kenn mënu koo xam kon nag bu fekkente ay junni junni junni junni kaamil dañ ko fay jàng yaakaar naa ne suñu borom mën na ci def taw fi bu baax euh, sëriñ Basirou Mbacke moom sëriñ Abdou Khadir Mbacke délégation bi mu bi ñu ngi nii toog sëriñ am sa kii sëriñ Xaadim Mbàkke moom sëriñ am satu Mbàkke moom itam eh, léegi la fi jóge waaye xam naa ne incha allah daañu leen wax kilifa yi nga xam ne bis bi ñor na leen ñu bokkoo sëriñ bis bi incha allah daañu ko jàllale léegi eh, ci kanam tuuti. ilaha illa allah kare min mudulonu mudulonu bara bare min mudulonu la la ilaha illa allah kare ma sam xene ndey fag bare min mudulonu bare min mudulonu la سير المنصرف كل بمبا قوة بارك العلم النبي من الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا لا بمبا النبي من بارك العلم النبي من الله

إلا الله تخبرك وي أمنو بارز خير تخبرك إني محمد لا من لا لا لا إله إلا الله باراي محمد لا من محمد لا من ray Mamadou Lo ñun. Mamadou Lo ñun baay. sa baay Mamadou Lo ñun laay laay. sangu taami asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu yéen ñi nga xam ne nii yéen a safoo Touba Argentine di seetaan Touba Argentine ci àdduna wërngal këpp waaw lii mooy li nga xam ne nii moom lañ leen jërale woon njenne ci ndigal Serigne Gora Seck kilifa yu bari teew nañ fi. ñi nga xam ne ni teewoon nañ fi ñu jot cee lim ay astu as lim muy Serigne Moustapha Abdoul Ahad Serigne Khadim Mbacké Abdou Ahad Serigne Moustapha Fall Modou Aminata Serigne Fallou Fall Hamdi Serigne Djili Mbaye Yaram Serigne Cheikh Ndiaye Mbacké euh, euh, Serigne Cheikh Ndiaye euh, Mbeng Daarul Qur'an Serigne Lamine Ndiaye Serigne Cheikhouna Bousso Mbar Daarul Qur'an sëriñ Mbay Jenn ñii ñooy ñi nga xam ne ñoo fi teewoon maanaam di ñi nga xam ne nii dañoo safoo Touba Argentine ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp seen mbokk Modou Samb ak Abdou Ndiaye ñooy wër di leen jëlal lii nga xam ne dafa am biir Touba ak euh, li ko wër lépp ci biir Sénégal ngir ngeen mën a dund Sénégal mën a dund alxuraan mën a dund Sëriñ Touba jërë ngeen jëf.